Thank you. di wasaare tey ko ci bay toj net <laughs> di mbër bay toj net aca moo ngi noonu li moo nekk huitième combat de la soirée si diggante Boy Diakhao Moussa Ba Diaw moom moo ñëwoon ginnaaw ak Baye Ma ñoon wala Baye Ma ñoon si ñoon bu jaaree sur mer kooku mag jo mag te Baye Ma ñoon ko indi moo ñëwoon kanam arbitre sifflé na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Baye Mandione ak Boy Diakhao tolloo tolloo taay <laughs> kii xes kii xaw a ñuul cokkaasante teel nan raak fit bu nekk sama jë moo nekk si moom moo ngi xeex kawo dina am da koy tël tël na ko daan na ko déet diis borom dool ke mul ko noonu o oh. confiance ngi lii si kanam si ñoon booy jaxaaw baam ñëw si ñoon ñaa jàppante nañ Boy Diakhao jàpp na ngeem bàyyi ma ñëw ci noonu jàpp ngeem bàyyi ma ñëw li muy tànte nii baa wóor na bàyyi ma ñëw li ngay tànte baa wóor na bàyyi ma ñëw li ngay tànte baa wóor na bu ko forcé Boy Diakhao nee na tekk daal di jàpp ngeem bàyyi ma ñëw jàpp ñëw bàyyi ma ñëw si ñoor waaye ba ñëw ñoo jàpp na Boy Jaxaaw jàpp na ñoom ñaar ku nekk jàpp ko sa ñaari loxo yëpp ngemb ku nekk taxaw di xalaat de réussir waaw ba ñëw si ñoo tànn nga ko ci trois fois demul da ngay kon ne wala tànn leneen ah bii nee na ngeen bëre Boy Jaxaaw ngi dóor si biir bi bëgg na ko plaqué mu demul déedéet mënul nekk plaqué du solution ba Boy Diakhao plaqué du solution Boy Diakhao tànn na plaqué demul Baye Mandione Junior tànn na ko bëtt pour di mu bañ ñaari mbër ku nekk nee galgal laa fi gis galgal lu yàgg galgal te da ngay zongale déedéet <laughs> dafa diis mënoo koo zongale Baye Mandione Junior Boy Diakhao dafa diis mënoo koo zongale bëgg na galgal mu rëcc ñoom ñaar ku nekk yaa ngi tànk yaa yaa ngi tante action dawul ab bi day sifflé bu ngeen jege saako yi ab bi di bu ngeen di jege waat saako yi ab bi ñoom ñaar fu mu nekk di ku nekk na teg ko siwi nee na bu ko bàyyi bu ngay dóor la ay dëb ngay dégg dëb bum aw oh, déggal sa fàmm ya bum ay tëj ngay dégg ay dawul dawul Bama Ndione ñoo te suñu nee deel bàyyi ma ñoon baaxul bàyyi ma ñoon ngi dóor bàyyi ma ñoon ngi dóor lamp tàkk yee naaw na dóor bu daan day am dóor bu daan day am dóor bu daan day am gërëm na gërëm na gërëm na bàyyi ma ñoon si ñoon gërëm na bàyyi ma ñoon si ñoon gërëm na bàyyi ma ñoon si ñoon gërëm na <laughs> ay borom doole yu dóorante moo gën a mën si àddina bàyyi ma ñoon si ñoon gërëm na waxoon naa la ko gërëm na Papa Mignone Junior gërëm na bu yàgg Papa Mignone Junior gërëm na bu yàgg waxoon naa la ko Papa Mignone Junior nee <laughs> na bu yàgg waxoon naa la ko gërëm na bu yàgg da nga waroon génn saako yi eh, eh. oh xarum si ba tëree ngay ñibbi booy jaxaw yaa ngay ñibbi ah waa xoolal si ba tey seen jeune bu la.